téléspectateurs de la 7TV et bienvenue dans votre émission Goorgoorlu ah, tey nag ñoo ngi fii ngeen xam ne muy yoof ah, boo leen déggee yoof nag ngeen xam ne laayeen yi ñoo woote ah, te Seydina Limaamu Laay Seydina Issa Laay képp kuy rek laayeen bu wootee ñëppay bàyyeekoo fu un peu partout dans le monde daal di wuyu si boo leen gisee sama blanc ngeen xam ne carrément nag tey damaa daal di wuyu si ki nga xam ne mooy Seydina Issa Laay bi nga xam ne ñoo xewle tey ñoom nag ñu daal di nekk si li nga xam ne mooy 143e appel thème euh, rek li nga xam ne mooy non à la violence maanaam euh, euh, paix et sécurité donc loolu nekk lu am am solo donc nee naa leen góorgóorlu fu nekk lay dem mais tey nag dañu daal di ñëw ci fi nga xam ne mooy appel bi dinañ daal di seeti les vendeurs à la sauvette dinañ daal di xool nga xam ne mooy jaaykat yi nu ñu toogee fan lañ jógee lan la ñuy jaay ndax fii gis nañ fi ku ne tey waxtaan bi dina neex dina yaatu damay ànd sama doom ki nga xam ne mooy Cheikh Sadibou mu daal di ma ma daal di xool ñoom fan lañ toogee Cheikh Sadibou danga may daal di gunge ndànk ma daal di daagu ndànk at sama tout blanc tey daal di xool ñoom fan la ñu toogee ñu daal di waxtaan ñoom. voilà dañuy daal di jiitoo ci suñu moment nee naa leen mag yi ñooy jiitool les femmes d'abord ba tax na dañu daal di fekk benn moment bu fashion bu rafet lool moo ngi nii toog gis nañ ne day jaay ay affaires yu bari ay si dem Mali si dem leneen at leneen dañ koy tim at sumpu maman nuyu nañ la. maa ngi lay fay sama neena tuuti. maa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. maa ngi lay mastawu si coono gi. alors lan ngay jaay yow. man maa ngi jaay si dem Mali si dem doom ak ndiir ak sump loolu jaay moo ma fi tax a jóg ak bës bi nag ak bës bi nag ndax bés bi dama koo jaral ndax borom bés bi ku màgg la ku tedd la ku yaarame la ku am diine la ñuy ñaan ku fi toog yal na fi yàgg te wër ñi fi nekk di taalibe yi di def lu baax xéewal yi yu nekk ñu di ko indi berde yi yal na leen yàlla yokk ay xéewal ak wër a gudd fan voilà maman ñu gis ne appel religieux bu ñëwee dangeen di daal di dem maanaam kon Touba comme Kaolack comme Tivaouane yéen da ngeen di jël seen euh, euh, matériel daal di ko yóbbu marchandise daal di ko yóbbu jaay ñooñu si yow si ñoom nga bokk wala yow appel bi rek moo la fi indi. gis nga man Touba laa jóge sa kasu raget ga daanu si fii bi ma daanu see fii fii bu jógee bu jeexee jàmm ak salaam te yàlla dogal ko maa ngi dem Darou Moussi man damay topp rek ñaan ku ziar am ma dem. am na solo waaw waaw di daan sama doole rek. ndax bëgg a tedd man. góorgóorlu kat nga bu mag. waaw waaw damay daan sama doole de ñafekat laa. merci beaucoup alors Cheikh euh, gis nañu si nga xam ne mooy suñu maman moom la ñu daal di ibbee émission bi euh, nee naa leen moom rek nekk fii dañuy daal di doxantuwaat ndànk am na ñeneen ñuy jaay euh, yeneen donc ñu àndal ñoom waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne aussi mooy góorgóorlu bi ñuy def ak naka lañ koy defee ndax métti na lool yombul nga daal di jugee bàyyeekoo fu ne daal di ñëw juste pour daan sa doole donc Cheikh danga may daal di gungewaat alors euh, Cheikh Sadibou ba léegi nag ñoo ngi ñëwaat fekkaat beneen maman bu am jom buy góorgóorlu bu baax a baax euh, moom it ñoo ko daal di fekk muy jaay li nga xam ne mooy ay gowee ay ay sidde Mali lépp li nga xam ne rek euh, nit dina ko daal di soxla moom it dañ koy daal da koy daal di jaay. maman nuyu nañ la. ñoo ngi leen di fay. maa sonnoo. déedéet sonnuñu tubaarkaal la. masa coono ci sonn bi. yombul. déedéet déedéet defewul. tur bi la. Xadi Jaw laa tudd. a ah, Xadi Jaw fan nga jugee. man Tiwaawan. Tiwaawan Tiwaawan nga bàyyeekoo ba Yoof. ngir daan sa doole. topp limaamu laay bi rek fas yéene fee jaay rek jaamu fi yàlla waaw liggéey rek. gisee appel bi. neex rek neex tubaarkàlla lekk yi macha allah njaay mi lépp amuñu benn problème daal. yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw lekk yaa ngi ñëw lépp daal tubaarkàlla. ñu ngi lay ñaanal nga ko ay at yu bari amiin yaa rabbi amiin bi gën a doole. ba amiin wér gi yaram ak gudd fanak ak lépp ñu bokk ko ñun ñëpp. léegi yéen boo leen jógee fii après si appel bi da ngeen daal di ñibbiwaat ba ci waaw dañuy ñibbi Tiwaawan ndax suñu ziar général bi ngi waaj a ñëw bu ñu jógee appel bi dañuy dem ci Tivaouane préparer ziar ba ci kàttanu yàlla. ziar bi da ngeen di jaayaat. dañuy jaay comme nii. incha allah ay góorgóorlu. waaw bu soobee yàlla waaw. comme ni ngeen ko gisee merci maman. incha allah jërëjëf. comme ni ngeen ko gisee merci beaucoup nekk ci jàmm aussi ñoom dañu daal di am jom lool nee na bu jugee fii rek euh, day daal di préparer li nga xam ne mooy ziar général bi euh, fële ca Tiwaawan euh, bu ko defee aussi dina daal di rek li nga xam ne mooy jaayaat pour vous dire que góorgóorlu moom ñëpp la ñuy daal di tàllal suñu micro comme ni ngeen ko gisee événement bi nga xam ne muy appel des Layènes donc ñun dañ leen di daal di rek li nga xam ne mooy jaajëfal bu baax a baax parce que yombul donc ñu bàyyeekoo fu nekk damay daal di ñëwaat encore fii j'ai trouvé aussi des femmes salaamaaleykum Amégel Gadi bu ba tey ñoo ngi fii aussi si jàmbaaxkat yu jigéen yi nga xam ne ñoom it dañu nekk di daan seen doole euh, soxna jaara ak Kiné euh, nee naa leen ñoom samay client lañ ndax démb ñëw naa fi jënd cuuraay euh, Kiné nuyu naa la. ma fay naa la. waaw yaa si jàmm. sant yàlla bu baax. bu ñëw naa ruube la tey ma ñëw tàllal la micro. <laughs> da ngaa baax rek. du yow. <laughs> fan ngeen jógee yéen pour ñëw jaay si rek li ngeen xam ne mooy seen marchandise yi. Tiwaawan. Tiwaawan. Tiwaawan ngeen bàyyeekoo ba Dakar. Tiwaawan lañ jóge daal di dem Poroxaan jóge Poroxaan dem Touba jóge Touba daal di ñëw jàmbalaay. sa coono ci coono yi ngeen euh, dajale. dëgg la. ba client yaa ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw nànk-nànk di ñaan yàlla rek xéwal gi gën a wàcc ci ñun ñëpp. xéwal bi day ñëw sax parce que ñi ngeen dem di wuyu ji yéen di fa jaay foo leen jaar am xéwal ay jigéen yu mën góor ngeen bu leen neexoon tey ngeen tëdd di def leneen mais dangeen ngeen jug daan seen doole ay góorgóorlu kat ngeen yéen lanal lan ngeen di jaay exactement. moom laa ko mën a tuddee ndax lépp luy sax fii si Sénégal rek koy jaay siddéem la ndiir gawe sumpu dànk waaw seen yëg ngeen dafa meilleur waaw ñun moom dañoo meilleur ci lépp taalee sama kër ba léegi moo ngi gun dañoo meilleur ci lépp <laughs> waa soxna jaara soxna jaara yow démb danga maa jaay faaw ma tiibalal la sama micro kaay ñëwal te dangaa jongo ma sax nag est-ce que ba noonu Cheikh dam <laughs> ah déedéet duñ la ko jéggal ndax da ngaa jongoma seen i xeetu goowe lan la dafa meilleur. ah goowe wàll la ñuy jaay ak frais peñe. Uh-huh. waaw goowe gu neex sax macha allah. bi ngeen xam ne moom laa taal démb ba léegi moo ngi xeeñ lu neex. man kay xamoon naa ne boo xëyee di nga ñëwaat moom. moo ma ñëw si lu leer naa ñi laa la wax. parce que coono ci coono appel bi coono màggal yi ngeen jugee ndax yombul ngeen jugee ba ci waawoon ñëw ba fii. waaw ma ne ko sant yàlla rek na bañ ñaan kenn nag moo war a ñuy dóor waar Touba lañ jugee Porokhane lañ jugee ñëwaat Touba ñëwaat appel bi te fu ñu déggaat programme tam dañuy dem rek. yàlla borom bés yàlla bés yi fay leen uh, coono ji amiin te ngeen bokk ñun ñëpp amiin amiin jigéen ñi mën góor ba tax na Cheikh gis ngeen rek nee naa leen góorgóorlukat yi uh, góor yi am nañ si waaye jigéen yi bu nee naa leen uh, du ma daal di jël jigéen ñi kese balaañ góor yi di ma mere ndax aussi am na ay góor yu am jom donc ay góor yi nga xam ne dañuy góor góorgóorlu bu baax a baax sëñ bi nuyu naa la waaw maa lay fay lan ngay jaay ay kol laay jaay nan nga tudd man maa ngi tudd Papis Papis waaw say xeetu kol dafa jonga ma yow lii la la lii nii bu ma si tegoon nii rek aal ma ma jël si teg ko nii wekk ko sama kaw. waaw loolu moom day fay moom. <laughs> yow kol yi muy jógee. kol yi maa ngi jëndee fee Satner. Satner waaw Satner laa ko jëlee. yow da ngay def chaque màggal bu amee da ngay daal di ñëw euh, comme appel bi màggal yi passé religion daal bu amee da ngay daal di ñëw wala euh, appel bi moo la gën a jege rek moo tax nga ñëw fi jaay. non man moom damay faral tourner si màggal rek màggal programme bu nu am la ñu dem ko quoi di daan suñu doole. Euh, appel màggal yi passé. waaw waaw gis nga ne affaire moom mooy loolu xewal rek comme màggal ngay mën a takkale moom dëkk bi daa doy waar loolu moo tax quoi. mais nag yaa ngi góorgóorlu bu baax a baax. waaw maa ngi góorgóorlu. lan ngay wax jeunes yi jeunesse yi bi nga xam ne euh, ñoom dañuy daal di euh, li opté facilité rus nañu def vendeur à la sauvette di jël ay yëre di ko jaay lan nga leen di conseillé. ah mais ni conseil ñëpp rek def na man rek xam nga affaire moom daan sa doole moom mooy loolu sàcc daal moo bon quoi waaw sàcc daal moo bon. yan euh, <laughs> yàlla na daal di jar Cheikh dañuy daal di dugg fa fële dem si suñu yaay yi. vous avez vu man maa ngi dem toogat encore sama benn maman donc euh, ngeen gis ne dafay jaar ay sous-vêtements ah, dañ koy daal di nuyu mastawu ko ci coono bi nga xam ne euh, euh, moom la daj ci appel bi maman nuyu nañ. nañ la. masta coono. waaw ah, ñu ngi sant ñu ngi ñu ngi sant yàlla ak yonent bi ak ki ñu fi indi sonn nañu waaye coono bi coono bànneex la ndax mbirum lislaam dañu ñëw. te kii tax ñu ñëw fii dafa sonnal lislaam sonnal yonent bi sonnal lislaam ba am li mu am tey kon su fi ñëwee tey ñëw fii di siyaar boole ko suñu liggéey coono bu ñu fi am dañu ko mën a dékku ren nag jaay mi metti na ndax fu ñu teg ñu ne du foofu ndax ñun fële lañ daan jaay ci biir waaye lépp la santeeku santee ko boroom xam ne lu am rek yàlla la lii ñu fi indi tamit yàlla dina ko sottal at na suñu boroom yal nañu yàlla may fan wu gudd ak wér ñu yàgg fee ñëw yàgg ñëw di siyaar yéen tamit yàlla doxal seen liggéey ba fa ngeen bëgg a egg ngeen egg fa si kàttanu suñu borom waaw. moo fan nga jugee ñëw fii. Caaroy ah? laa jugee. Caaroy waaw Massa coono. yal na yàlla nangu coono yëpp. yow appel bi rek nga faral di ñëw wala yeneen màggal euh, religion yi nga xam ne waa Touba Kaolack bu ñu xewlee da ngay def. Touba moom damay màggale ndax fa laa bokk waaye du fa jaay waaye Tiwaawan moom laay jaay ak fii. waa jaay baa ngi jar. waaw maa yàlla bu gën jar bàyyi wala slip yi wala kawaas yi. kawaas yi kawaas yi waaw. ak yii tamit ak caleçon yëpp na jar. merci beaucoup maman. waaw tur bi nan la Kumba la. Kumba Seye Xalaasam. ah Kumba Seye. waaw ah, amoon foofu donc am nañ beneen maman boo xam ne. moom jaay euh, li nga xam ne mooy beñe yi maman dañuy daal di ñëw ci yow. waa démb laa fi ñëw Thiès laa jógee. waaw tur bi la. xadi xadi dikko. dikko. ah su ma turandoo màgg. waaw loolu am na. dañoo ñëwoon nag si màggal bi xam nga sëñ bi rek jar na ko di nga jaay di nga ziar. Ah. waaw. laayeen nga wala man Tiijaan laa nag man taaliba Cheikh. waaw wante lépp rek bees diine ji la daal waaw waaw ak kontaante daal. coono parce que métti na nga jógee ba Thiès ñëw fii di jaay euh, li nga xam ne mooy peñ beñe. dëgg euh, naka nga koy dundee yow at fan ngay lakkee beñe yi. waaw sama kër na man maay lakka sama bopp maay defar sama yëpp ñëw coono la nag wante coono bànneex la ndax ñëw fii rek ziyaar ñaan fi say soxla rek loolu kii la bànneex la. dañuy ñaan la fekke ko ay at yu at yu bëree bëri ndax fii rek lañuy ñuy ay ak ak Tiwaawan waaw. mbaa mbaa euh, beñe baa ngi jar. waa mi ngi jar moom mi ngi jar ndax indi woon naa lu bëri lii moo si des macha allah te xam naa dina jeex balaa may ñibbi. na gaaw jeex léegi amiin amiin amiin waay. merci beaucoup maman Khady donc euh, di la mastawu coono bu baax a baax a baax. gis nañ ne yaa ngi jaay ay verre. waaw jàkkaarloo sama caméraman nga xool ko ndax say verre sax yow dañoo fàcceel. Mm. noo Kader. Magay Magay. Magay foo jugee. man maa ngi jógee ko Liberté 6. Liberté 6 waaw soriwul Massa Coono. ah ñu la koy delloo. alors euh, jëlee verre yi exactement. Ah, verre yi sama benn patron bu ñuy wax Bakary Mbaye ko jaay. ñëw jaay si fii verre. waaw dañoo na verre yi xaw na dox ñu ne xool ba xam nu hmm. euh, bi rek ngeen di faral di ñëw wala da di dem euh, ay Touba bu xewlee Euh, événement religieux yi da ngeen di dem. événement religieux non nag dama guñ si benn yoon nag mais nag ñu ngi rafet pour dem si nag parce que dam ñu fekk gul moo tax. Hmm. en tout cas affaire yi rafet na torop ah, donc yàlla na jaral jàmm. amiin war na góor war na jigéen aywa leen. ok merci beaucoup merci beaucoup comme ni ngeen ko gisee nii Cheikh Sadibou kooku verre lay jaay léegi dañuy daal di dem ci maire yi nga xam ne aussi dañuy daal di jaay ay ay wala day jong baa nga ñuul baa tiipi Tamba ay xees booy dañ koy baar bay yambar xolal ay baay tàmbal ay téeméer rek way téeméer rek ay téeméer rek am téeméer rek nga daal di am téeméer rek nga daal di am téeméer rek kër xeeñ ne téeméer rek nga daal di am téeméer rek kër xeeñ ne téeméer rek Cheikh da ngay jaay géwéle di nga xam ne maa la gën a géwéle waa day saan parfois boo jël téeméer voilà parfois jënd leen alo parfum yi nga ne ñaata téeméer. téeméer loo jël téeméer. loo jël téeméer sa kër daal di xeeñ neex. sa kër daal di xeeñ neex. daal di xeeñ neex. Ah. ànd ak neex ànd ak bis neex. ah bi dañ na bis bi tout borom lay tollool. Ah, ah. ndax euh, fi ma ñëw tey yàlla moo ne waxoon na dinaa fi teew ndax euh, li ngeen di def nii def nii mag mag. ak naaj bu taam bi nga koy déranger dafa métti ndax aduna euh, sooy xool du dara ñun ñëpp dañuy dañuy liggéey rek ndax ndax góorgóorlu góor moo jàpp góor góor moo tax tax folu ndax euh, maa ngi remercier sama yaay sama papa samay rak waaye gën jigéen ñi mayuñu leen dara tamit ñoom it gàddu nañ seen i bagage jigéen ñi tamit mayuñu dara ndax euh, lii kuñ na neexu dang see bokkul kuñ na neexul bokkoo ci ndax euh, surtout sama grand mu ko gisee sax day sedd si moom ah. sama day sedd léegi yow ñu ñaa di ñëwaat yéenay jaay en même temps euh, fer yi waaw ah, fer yi ñu ñoo koy jaay ah. bin bin yi jaay lépp ñoo Seex jëndagul de. Seex faa mu jënd ci bin bin yi. Seex day jënd de Seex da ngay jënd Seex da ngay jënd de. Seex woo il faut mu jënd. boo jëndee benn ñu may la benn mayaale la benn parfum nga yóbbaale. loolu moom neex na di. mayaale la boo xamante ne spécial. spécial lii ban genre parfum la. spécial pour yow. ah da ngay def nii rek. mu xeeñ neex. merci beaucoup yow fan nga jógee. man maa maa ngi jógee Géejawaay. Massa coono. waaw. métti na. métti na trop Amila doo nelaw guddee. doo nelaw guddee ak lañ fanaan ba përset. nga yëpp nelaw bàyyi ma man maa toog di gérer affaire yi. macha dem si romb naa la. waaw romb romb nga ma fi nag. di la jaajëfal bu baax maa ngi jëm jaajëfal sama jigéen sama xarit sama doomu ndax lii lii yombul lii yombul nga déranger ko si naaj bu tàng bi yombul. maa ngi remercier ambulant borom ambulant yëpp tout le monde ñi fi nekk ak sama ñoom yaay sama ñoom tànta maa ngi remercier baay baay ciao. Ah, merci beaucoup euh, Cheikh Sadibou euh, a bi rek ah, nga loolu nee naa leen fu ñu dem ñu may <laughs> Ah, voilà ba tey ñoo ngi taxawal suñu benn rakk donc moom nag dafay nekk di jaay ay rob donc boo leen solee boo leen ñëwee lu yiw rek ñëw leen fii mu jaay leen rob robb ah, bu ko defee mu yiw tur bi nan la rakk sama. Touba Dia. Ousmane. Touba Touba Dia. Touba Dia. xanaa Touba ah. xaadim nga tudd woowee sa bopp. xaadim waaw waaw. ak ñoo stylé ñii ah fan nga jógee Touba Dia. Touba Jolof laa jógee. ah Touba Jolof laa jógee waaw ñoo fii di daan. dëkk Touba dëkk Touba jógee Touba ñëw Dakar. waaw di jàpp sunu borom rek. Ah, alors masa coono ci euh, voyage bi ak euh, li nga xam ne moom ngay jaay métti na de. waaw métti na ma waaye sant yàlla rek. Ah. Ah, d'accord yaa ngi fi depuis kañ. maa ngi fi depuis 2016. depuis 2016. waaw di ñëw Dakar. waaw di. yaa ngi jaay li depuis kañ. pour daan sama non yàgguma ci tey laa commencé rek. waaw tey gis dina jaar nga commencé loolu. am naa si yaakaar parce que bi may départ moom moo gisuma woon dara waaye bi ma demee ba ci kanam client yi ñëw di ma sonal ma gën a am yaakaar nag waaye yàlla baax baax na mm. euh, ñaata nga jaayee robe bi. robe maa ngi jaay 2000 am na 1500 am na 1000 francs. yëkkatil bee dañu xool. yi mooy yi jar deux mille yi mooy yi gën a rafet yi gën a normal. maa yëg nga ne maa ngi ñëw fii jënd si lépp. ah ah loolu. nga ma. waaw xàmmee naa la bu ah, baax waaw naa ñëw jënd si yëpp def sama participation si ron. ah waaw baax na danaa fi ñëw. bi ñaata lay jar. bi ma yu rafet. Ah. maa ngi ñëw jënd dégg maa ngi ñëw boo paree rek ma ñëwaat yow ñu gisante ci la ñu ñëwaat si beneen monsieur bi nga xam ne moom it dafay jaay ay tissu moom ay dentelle yu rafet la yor sëñ bi nuyu naa waaw maa ngi lay fay soxna si bi nan la bi Moustapha Gadiaga Moustapha Gadiaga waaw Moustapha Gadiaga Masta Coono dégg naa nga naan sànq da ngaa sonn depuis démb yaa ngi non vraiment waaw ndeysaan barki démb ba léegi maa ngi ci ah, marché bi waaw maa ngi ci marché bi di wut am gaayan ah. andi samay tissu yu rafet nag samay dentelle dentelle yoo xam ne dama koy jaay par mètre 3000 waaw mais 3000 laay jaay danteel yu rafet or yu naaj lu waay bëgg ñëwal fii ma jaay la ko gaaw mu gaaw bala may dem bay jeex. maa ngi jógee Pikine tali bu mag. mooy loolu waaw naaj. mais nag man maa ngi ci job bi mooy loolu bañ ko nu bëgg suñu yëngu bopp rek moo tax ñuy daan doole di sonn suba ngoon ñuy daw bu dégg ba ceeb mooy loolu yaa ma gën a xam daal. yow c'est la première fois ngay ñëw si ay événement religieux. waaw waaw waaw c'est la demoon nga tàmmoon nga di dem ay. fii moom maa ngi fi doog a ñëw nag tey quoi. waaw appel moom maa ngi koy doog a ñëw mais nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ndànk-ndànk ñu ngi soxeeku ndànk-ndànk wax dëgg yàlla bopp ci li ngay jaay bopp ndànk-ndànk quoi parce que teegul moom baaxee mais tamit ñu ngi ci daal affaire yooyu xëy na ñu ngi fii ba ngoon rek ah, waaw xëy na yàlla baax na quoi yàlla na liggéey bi gën a neex yaa ngi may woo merci Sadibou nos chers téléspectateurs de la 7TV nee naa leen Jakarta maan yi dañu xew ba événement bu xew ñoom dañuy daal di ñëw di si gagné bu baax macha allah yéen ay Jakarta maan ngeen ah nuyu naa la noo tudd. waaw man Abdoulaye tudd. Abdoulaye yow noo man Babacar. Babacar daa mel ni temps yi seen liggéey a ngi dox de. ah waaw tuuti tuuti rek ñu ngi sant yàlla bu baax waaw. Ah. waaw fan ngeen ñëw fii. man maa ngi jugee Kër Massar quoi Kër Massar laa dëkk waaw. nga choisir ñëw fi euh, daal di euh, liggéey. non dama xam ne tey appel la ak euh, te aussi day am ay nit quoi gars yi dañuy soxla jam di ñëw moo tax ma ñëw fi rek pour taxale waaw. waa clients yi ñoo ngi ñëw. waaw waaw ñu ngi ñëw tuuti tuuti. yéen maa doo leen appel bi du ñëw rek ngeen di facturer nit ñi lu cher. a ah affaire moom dañ koy teg rek fi nga xamante fa la nekk moom. waaw bu xoolee diggante boo ngay dem rek ñu xool li nga xamante ni moom moo raisonnable pour ñu yóbbu la fa rek ñu yóbbu la. diggante fii wa Taliba ñaata la. diggante fii la doo leen ci yóbbu rek. non non ñun moom comme dab lépp dañ koy teg si yoon quoi parce que ñun dañu bokk si réew mi nekk ay responsable di joxe dépasse waa te ñaan nañ yàlla ëllëg bokk si ñuy doxa réew mi quoi moo tax ñun si lépp dañ koy teg si yoon. waaw bien vrai que ne liggéey bi bon am na ay jafe-jafe am na bon ñu si bokkul mais loolu moom si secteur yëpp la waaw mais ñun moom liggéey rek moo ñu tax a jóg quoi. maa ngi leen di jaajëfal bu baax baax. waaw yal na gën a barkeel merci beaucoup alors Cheikh Sadibou comme ni ngeen gisee du ko jeexalee parce que gis naa ku yor ay kurus ah, donc fii ah yow borom kurus baa ngi daw di am na keneen ku yor aussi ay jàllaabe yu weex ndax nee nañ leen ah, ah, appel bi ñëpp dañuy daal di sol lu weex sëñ bi nuyu naa la mbaa liggéey baa ngi jar ñëpp a ngi sol lu weex nga indi ay jàllaabe yu weex. waaw wax dëgg yàlla màggal gi moom neex na lool appel bi jàllaa bi gis nañ si bopp baax baax wax dëgg yàlla dangaa protégé wu si poussière bi de sol sa masque. dama protégé wu ndax masque bi aussi looloo tax poussière bi waaw waaw loolu moo tax waaw. léegi jaakaar yi ngay jaay ñaata nga koy jaay. dama koy wàññi 2000 rek laa koy jaay. 2000 2000 waaw. maa yaa ngi si gis sa bopp. maa ngi si gis sama bu baax a baax. ñëpp la ñuy sol. waaw tey moom la ñuy sol quoi dëgg yàlla gis nañ suñu bopp baax. bu jógee. man maa ngi jógee Médina. Médina. Ah. Masta coono appel. waaw moom métti na moom affaire yi moom. ñu bu baax a baax. waaw kontaan nañu baax na. yàlla na jarat jàmm ah, Cheikh dañ koy daal di jeexalee fii rek ah, xam naa ne ñi nga xam ne ah, ñoo fi ñëw bari nañu mais xam nga mënuñoo jël ñëpp donc ñoo ngi nekkoon nag fi nga xam ne mooy Yoff nekk si ci 143e appel des Layènes donc nee naa leen naa Limamou Laye bu wootee ñëppay bàyyeeg ñëppay ñëw ñëpp sol li nga xam ne mooy lu weex a donc yàlla na yàlla nañ ko fekk ay at yu bari. Ah, donc mi ngi noonu ah, tey thème bi mu nekk lu ama am solo ndax li nga xam ne mooy sécurité euh, paix an ah, non à la violence loolu dafa daal di nekk loo xam ne euh, nit ñi dañ ci daal di war a bàyyi xel parce que violence baaxul lépp loo xam ne amul sécurité baaxul lépp li nga xam ne mooy fitna at nakar baaxul di nga xam ne voilà di nga nekk sa jàmm bu nekkee am nga sécurité donc di leen wax bon appel à ñoom ah donc di jaajëfal également sama sama sama caméraman di Cheikh bu di jaajëfal sama rakk bi nga xam ne moo ñu accompagné tey mais di wax aussi merci beaucoup à Gora suñu monteur de tu les temps ah, 7TV moom ah, nii rek la événement bu am dañ fay daal di a euh, nii fa batt takk fa rip ah, donc di wax que j'ai été habillée par Keyna la Star Store comme ni ngeen ko déggee rek ah, sama atelier moom lu ma sol moom moo ko ñaw ah, donc mun ngeen ñu contacter aussi euh, pour ñaw yi wala rek euh, pour li nga xam ne mooy euh, boo leen bëggee ñu interviewer leen sur le 77 480 25 25 di leen jaajëfal bu baax a baax mais aussi di leen jox dig daje ba beneen mercredi xam naa ne mercredi prochain incha allah di ngeen am rek di ngeen xam ne mooy seen yeneen góorgóorlu di leen jaajëfal sur ce prenez soin